léegi nak ñew leen ñu conjuguer son verbe russe, je russe tu russe il russe nous roussons vous roussez gatcha national merci beaucoup avant tout Tata Mbayang ci leeral yi nga apporter ci kaawu Titi bi avant tout d'abord léegi nak journaliste yi nga xamné ne yak doomu Adama, difaame nit waxal nit lu ñaaw jaral na leen taal sen auto def ci essence bu bari daw ay kilomètres yu bari dem séti pa bi talal ko sen micro mu jox leen ay information yo xamné c'est faux c'est archi faux wal leen fa nak yéen ñiy joxe information te du ngeen def investigation dawaat leen ngeen dellu ca paaba mu joxaat leen maanaam information yi xamalaat leen carrément ne damaa jaawale sama doom ak titi jéggalu titi parce que àq dafa sew te da topp ba ci bàmmeel yéen tam ngeen jéggalu askan wi mu balu titi ci seen kanam démentir la mu waxoon ñun tam ñu ñëw jéggalu parce que ku ne am nga ci part de responsabilité commentaire gauche à droite ku ne wax nga ci man titi personnellement maa lay jéggalu parce que li nga def yàlla mën na la koo baal moom mais li nga def doomu aadama doomu aadama bi rek moo la mën a baal